bismillahi arrahmani irrahim an abil abbas sahl bni saadin assaacidiyi radiyallahu anhu qaal jëlee nañ ci suñ sang dàkkantam dàkkantelam di abul abbas turam di sahl doomi saad assaacidi yal na yàlla gërëm ko mu ne jaa rajulun ila nnabiyi sallallahu alayhi wa sallama waay mos naa ñëw ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne yaa rasulallahi yow ki yàlla yebal ci jaam yi alayhi salaatu wassalaam dullani ala amalin ida camiltuhu axabani llah wa axabani nnaas tegtal ma jëf joo ne su ma ko jëfee yàlla nit ñi it bëgg ma fa qaal sayiduna wa maulana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko izhad fi dunya dëddul àdduna yuhibbaka allah yàlla bëgg la wazhat fii ma inda annaas dëddul li ci nit ñi yuhibbaka annaas nit ñi bëgg la xadithun xasanun rawaahu ibnu maajata wa gayruhu bi asaanida xasanatin imaam Nawawi nee na xadis ju rafet la ibnu maajata ak kudut moom ci ruwaatul xadis solo nañ ko ci isnaad yoo xam ne yu rafet la solution bu gàtt laaye biir gu gàtt waaye jóge ci ki nga xam ne moom la yàlla jox jawaami alkalam jawaami mi ñaari baat rekk lay wax àdduna ak àllaaxira yëpp defaroo ci baaxee ci soo bëggee yàlla bëgg la dindil àdduna ci sa xol dëgg la danga liggéey dundal sa bopp dundal sa njaboot ni la ko yàlla digalee waaye doo attaché wu mukk ci lu dul yàlla boo ko defee rek yàlla sopp la ndax ni nga xamee ne du nangu jëf juñ ko boole kenn moom yàlla yi du dëkk du tàbbi ci xol buñ ko boole keneen nit boo bëggee nit ñu sopp la it bàyyi leen liñ xame koo bàyyee lim xamee jox ko li nga yore mu sopp la wazhat fi ma inda naasi dëddul li ci loxo nit ñi coow li yëpp ku nekk danga bëgg lëf sa morom bëgg ko mu jur xëccoo noonu new wala nga yore dara bëgg ko continuer yor keneen tamit bëgg caa jot noone dikk dëddul daal àdduna yàlla bëgg la bàyyil nit ñi liñ moom nit ñi bëgg la yàlla na ñu yàlla bëgg te bëggloo ñu jaam ñi te woomalalee ñu xalaalam walis xaraamam jox ñu bam doy sëkk ngëneelam walis ludut moom ak kudut moom subhaanahu wa taala hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama amin